فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والهجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الحمد لله حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحابته أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلد يفي دجي ñi ngi leen di nuyu ci turu sunuy kilifa ka nekk ca bopp ba di mawlaana cheikh alxaaji malik si ibnu cheikh alxaaji abdul aziz si ibnu cheikh cheikh alxaaji malik si ak mbooleem njabootu maam cheikh seydi alxaaji malik yépp ci ndigalal sunu wéy sëriñ Njoogu Sekk xalifatu Mawlana Cheikh Alhaji Yusufa Sekk ca Njoosi waaye ci turu muy gépp ci turu Alhaji Njaga Njaay nga xam ne tey fa tabaarakallaahu askanu muy yi nga xam ne it ñoo ñu yilif ci genn côté bi tey yàlla dogal na mooy seen kilifa bokk yi ñi ngi nuyu boroom xam-xam yi fi teew yépp ñu ngi nuyu ilimaan yi yépp waaye ñi ngi beral nuyoo ak ngërëm préfet département de Linguère muy Cheikh Ahmadou Bamba Koné teg ca sunu xarit sunu wëllëre alxaaji Ahmadou Ka muy président conseil départemental bu Linguère teg ci sous-préfet Sagata Jolof Sow di la ñaanal yàlla bu baax ci sa taxawaay bu rafet ak sa adjoint bii Diop nga xam ni fatigué wul benn yoon sant maire de commune de Boulane suñu mbokk alxaaji abu bakrin sow nuyu boroom xam-xam yi tund wi e Cherif nag soo gisee ma mujj laa tudd yàlla dalaa jiital jiital sama ba pare téye la mujj laa indi yàlla ku man ku am pédagogie cent vingt-quatre mille prophètes jaar nañ fi ñëpp ku ñëw yàlla na la kii ñëwagul mooy sa mooy sa patron waaye nag moom lay mujj tudd moom lay mujj indi dont nag moom laa njëkk tudd ci ci baatin nag kon Chérif ñi fi nekk ñëpp tey yaay seen patron yaay seen kilifa ndax sa maam fa jazakallah xeyr gërëm bu baax Chérif Abdourahmane Haydara bi dëkk ak ñun fii ci Bural te bokk ci imaam yi fas yéene jiite jubaa ji nuyu imaam Issa Diop ci turu imaam bulal yépp sëriñ Cheikh Day Sow alxaaji Morka damay bañ a lim ndax nee nañ boo limee mën ngaa bañ a juum waaye doo matal xam naa nag sëriñ Cheikh Asta mbir mi moom li ci waroon lépp damay ñaan chef de village bu Ndiossi nga xam ne tey ku fi ñëw tey rek mën naa wax ne moom moom mii nga ñëwal mu may ma li ma ci waroon a def ci gërëm ak cant ak protocole yi ñun ñëpp bu ñu jógee fii njoosi lañ jëm suba mooy gàmmu ga li ma war a jëflanteeg bokk yi ci cant ak gërëm ak kàddu yi ñu may ma ko ma denc ko ba booba ñu àggane ko fa ndax fii tey dara xajutu fi bokk yi danoo am gan gan gi wala sax du gan ndax Ahmed Dame Ndiaye ab jolof-jolof la fii la bokk ci jolof di sëtu Cheikh Seydil Hadji Malick direct di boroom xam-xam bu ñuy tiitaroo di boroom cër ci yàlla di secrétaire généralu ilimaanu Sénégal yëpp ak yarukatu réew mi ñëpp d'accord nañ mu jiite leen moo nekk ni tey xalifa yeeg muxaddam yeeg ustaas yeeg yooyu yëpp ñoom ñëpp cër boobu tey may nañ ko tey Touba d'accord na Tiwaawan d'accord na Cheikh Seydil Hadji Malick mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ñoom ñëpp jox nañ ko ndigal ne tey mooy jiite jumaa ji ndax moo jiite ilimaanu Sénégal yëpp kon loolu am na solo Serigne Moustapha loo ngi nii toog mooy président fédération nationale des associations d'école coranique du Sénégal bépp daara bu nekk Sénégal bu mën di doon bu Tiwaawan bu Tuubaa bu Jaamal bu Njaasaan góor gi tey moo la jiite loolu la yàlla dogal mun taxaan nangul na ko ko bërki démb ba muy woote ne nañ xoolaat réforme yi xoolaat programme daara yi da koo woon ko mu ñëw toog Sëriñ Cheikh Abdoul Aziz Al Amin bala moo dem dafa yëkkati ci poosam li génne lijaasa yu bari ne ko may njëkk a ndax man ak Serigne Cheikh Tidiane Sy ak sunu baay Alhaji Abdoul Aziz Sy ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Cheikh Ibrahima Niass association bu ne kuréel gu ne tëral lañ ko fi Senghor kucceel ñu tubaab yi galgal ñu bii nag moo fi des bu daanoo réew mi ñàkk kon fa jazakallah xayr Serigne Cheikh Alioune Sall at-Tijani ibnu cheikh alhaaji abdul abbas sall mi ngi nii toog ànd ak sama goro eh, elhaaji jili mbay yore tey daara ji gën a tey ci ndakaaru yore lu ëpp junniy taalibe genn wàll yàlla yàlla sàmm la maadu ba transporteur di kenn sunu baayu daara yi nekk ci daara yu njuus yi nekk fii ci jolof ak ja nekk ca Dakar sunu soxna Seyda Bassine Mbengue mi jiite ko muy kenn ca daara ja wax naa ko Ahmed Dar Ndiaye ca bu njëkk ba ne naa ko dee leen ko ñaanal ndax dundu daara ji day dundu daara diis na waaye ma nga def lu am solo e, imaam nag dañuy ñaanal Serigne Moustapha Sy nii nga xam ne moo toog ci sa wet di doom ci sunu sëriñ Alxaaji Malick Sy Abdoul Aziz Serigne Maodo moo amoon yéene ñëw taxawee bis bi waaye xam nga rek sëriñ bi ak chargé yi ak fa tabaarakallaahu mag ñu xam nga ne set ak tànk yeeg sedd yeeg yëpp waaye na mu boole ko ak ñi ko boole boole ko Serigne Cheikh Asta Niang Serigne Modou Niang Serigne Mor Ndiaye Iliman Lo ak mu xaddam yi fi nekk yëpp ñu ñëw fii tey li fi bàyyam waroon a def tey moom mu def ko. kii mooy préfet département bu Linguère yàlla la yàlla def gouverneur moo présider CDD bi ci façon bu jéggi dayo boo xam ne bu mucc ayib lu ne ma wut ko lu ne ma wax ko ci diggante cérémonie bi ak cérémonie njoosi bi suba na mucc ayib mënu na koo fay benn bi tey xat na ci moom am na ay engagement yu bari waaye mu dagg ko ne dama préféré ñëw fekk yi wi ñu fiy def ki jëmm ji toog nag borom bassin bu weex bii sëriñ bi damay ñaan boo demee nga wax sëriñ bi na ko ñaanal muy maître Amadou Ka mooy président conseil département conseil PESNIA bu port conseil administration bu port autonome de Dakar waaye mooy président conseil départemental bu Linguère bokk ci boroom xam-xam yittee Jolof waaye yittee réew yi waaye oyof lool mën a joxe cër lool tabe lool baax lool yitte woo daara yi njoosi fu mu mën di nekk nag yi nekk njuusi yi nekk Bulol ak yi nekk ndakaaru yi nekk gang parce que ah, yàllaa dogal njuusi amul jenn daara ay daara la yore ku ci dugal loxo ngeen ñaanal ko yàlla ñi ma war a tudd ak ñi ma war a gërëm danoo bari bari goo xam ne liggéey bi duma permettre tey sëriñ bi ma dugg ci waaye damay bàyyi boo accès sa làmmiñ moo gën a barkeel suñ bos yaa ñu gën a jotale nga ñaanal leen képp koo xam ne jàpp na ci liggéey bii fi zahir wa fi yi yàlla xool ko gërëm ko moo gën man ma di ko gërëm yàlla na ko yàlla gërëm yàlla na ko yàlla fay liggéey bi nag tey ñetti liggéey la li ñu njëkk def mooy dañuy inauguré jumaa ji ñi ngi gërëm ONG abi jamiyatul xayriya al islamiya jàppale nañ ñu ba jumaa ji taxaw bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala man bucita rahmatan lil aalamiina sayyidina Muhammad ibn Abdillah fa tabaarakallahu lu gàtt rek la ñuy wax ndax bi ñuy xaar tabaarakallaahu ñëw fi ci ndigalu suñu wéyjur suñu sëriñ suñu wasiila sëriñ Maodo si Abdul Aziz yabal ñu ñu ñëw fekke si bokk Seydina Omar bis bi nga xamante ni bii moom lay taxawal di ci ubbi jumaa ji macha allah di ci taxawal première pierre pour jàkka ji macha allah ñu ànd ak suñu papa Cheikh Asta mooy boppu délégation bi ak Cheikh Mouhamadul Bachir Ndiaye ak Serigne Mor ak Mouhamadul Habib Ndiaye ak membre nii toog. maxali ñu ñëw ngir bokk ak yéen bis bi lay wuutu ci sëriñ Moodu yàlla dogal ni moom moo bëggoon a ñëw waaye jaam bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ah ñu fekk fii nag ay boroomi xam-xam ay soppe fekk fii tamit ki nga xamante ni bii moom moo couleur jotaay bi tey muy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa nazurukum wa nuhanni'ukum bi hadihi al umsiyati al mubaraka wa nadu allah an yajziyakum xayra al jaza li anna xudurakum fi misli hadihi al jalasat yaziduha rifatan wa yaziduha damanan aydan fa kullu man taallaqa binnabii sallallahu alayhi wa sallam fa amruhu la budda an yakuna kulluhu sawaban li anna allaha subhanahu wa taala qaala fi alqur'ani alkarim walladina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim durriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay fa antum ala darbi jaddikum sayidina muhammad ibn abdillah la zalat anwaarullahi wa barakaatuhu wa nafaxaatuhu tatanazzalu ala rawdatihi rawdatihi sharifati tilk ñi ngi nuyu ginnaaw bu ñu ziyaaree shérif moom muy kilifay jotaay bi di sëtu yonent bi sallallahu wa sallam ñi ngi ziyaara al imam Dame Ndiaye di boroom xam-xam di nit koo xam ni xam nañ ci moom dal xam nañ ci moom yéwénal xam nañ ci moom kàddu yu rafet fa tabarakallahu li alquran wax ni waqulu linnaasi xusna loolu dañ koy jàngat ci ay waxtaanam ñi ngi lay bëgge bu baax ñi ngi lay suivre tamit ci sa ay wàllu waxtaan di ñaan yàlla an yukathira min amthalikum di nuyu itamit muhammadul amin dramé mi nga xam ni moom tamit li ñuy wax ci oustaz Dame moom lañuy wax ci moom di boroom xam-xam moom it di ku jàmbaare kuy liggéey ci toolu lislaam defe naa ni ku ko gis di nga sa xel dina dem ci 2S ak émission diine yu am solo yam fay def di nuyu monsieur le préfet Cheikh Ahmadou Bamba keroog daje nañu ak moom ca mbuula di bég tamit ci taxawaayam ndaxte kilifa dafa war bu njabootam xewlee bu ñu gëstu gis ko ndax seen xel dal loolu lu am solo la ba tax na su ma ñëwee mbuula fekk la fa ñëwaat fii tey ci bura ah loolu wane na ni li nga xamante ni bii moom lañ la dénk ci gox bi yaa ngi koy joxe na mu waree di nuyu itamit mbokk mi nga denn la fa tabarakallahu Omar maître ka maître ka alxaji Abdul daa daan dégg muy wax ni yàlla yàlla yokk leeram nee na boo nekkee ci gaal bul ñaan sa ëmb sauvé nee na ñaanal gaal gi sauvé waaye nee na boo fa nekkee jël sa ëmb di korkoral naan man kay sama ëmb bi moom su muccee rek li ci des sama yoon ah bu faneen amee trou bu ndaw ci gaal gi rek ndox bi dana ci dugg gaal gi yépp far alk maara déyam si loolu misaal la ci ku ni ku nekk ci réew dangay ngay ñaanal ña jiite yàlla jàppandal jàpp jàppale leen taxawu taxawu leen fa tabarakallahu di sant waa dëkk bi yépp ci turu sidna omar fa tabarakallahu ak ñi ci jàpp ndaxte euh, sëriñ Mooda Touré radiallahu taala anhu laa daan dégg muy wax ni ñaari compte moo am ci àdduna ñaari compte wala boog ñaari compte moo am compte àdduna ak compte àllaaxira kont àdduna li nit ki di profiter tout le temps mooy fexe ba nu compte bancaire am gën a feese rek nee waaye nag compte boobu du compte buy des la nga ca def ci yoonu yàlla rek donc kese nga ca moom am beneen compte boo xamante ni bii compte àllaaxira la te ci yu mel nii la ko nit ki mën a sàkkoo ngir am ngërëmal boromam wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda ko wa ma tafaalu min xayrin fa lan tukfaruhu inna la nudiicu ajra man axsana amala wala nudiicu ajra almuxsinin yàlla nee na lu ngeen def ci yiw man yàlla danaa leen ko dencal danaa ko ful fay leen ko kon boog lu mel nii ci daara yu mel nii ak lu ni mel ñu koy taxawal ku ci def sa alal xamal ni lebal nga ko ku mat lebal man yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaaifahu lahu te yàlla nee na soo defee benn dama lay fay fukk moo tax nit ñi il foo ñuy bàyyi xel am am neex na waaye fexeel ba tabax ci ngërëmal yàlla ak njëggalam ak aljanna ëllëg ndaxte loo mën a yor ci àdduna di ko fi bàyyi bis wan ko ginnaaw dem mu mel ni mësul jaar sa loxo mbokk yi nañu gën a yokk suñu taxawaay ci wéyu néew doole yi association yu mel nii nga xam ni dañuy jàngal doomi jullit ñi alquran di leen jàngal diine fa lay tëje sama wax nañ ci gën a jàpp gën cee góorgóorlu nit ku nekk la nga jiital ci ca ci sa bàmmeel rek nga fay fekk boo dee dem sa sa doom du la topp sa papa du la topp sa soxna du la topp say wéyju duñ la topp sa alal du la topp li nga jëf rek jiital ko moo lay topp te nit ku nekk mutawalli shaarawi cheikh mutawalli shaarawi rahimahullahu taala moom laa daan dégg muy wax ni jullit bu nekk sa jaamu yàlla sa naafila làmbatu ko ca la la yàlla gën a jàppale ndal bu dee xam-xam la la yàlla dénk na nga yéwén ci sa xam-xam te xam ni sa jihaat ci xam-xam la la nekk bokk ko jaami yàlla yi comme ñaari ustaas yu tedd yi di ko def ci télévision yi macha allah bu dee yàlla ci wàllu business la la gën a ubbe xamal ni sa jaamu yàlla fa nga ko war a bari le di gestu woyu néew doole yi di leen dimbale te yàlla ñi bég lool ci li ngay jël di ko jox sa mbokk jullit bu soxla wala bu tële wala bu am soxla nga fajal ko ko billaahi moo gën nga fanaanee julli ba suba nga jox sa mbokk jullit mu lekk ba suur moo gën al yàlla nga fanaanee julli ba suba wax ma julli farata nag waxuma farata yi nawaafil yi laa wax il faut nit ñi di ci bàyyi xel wallahi amul benn yoon bu gën a gaaw ci àgg yàlla ci àgg ci yàlla ci joxe te yàlla tax di dimbale ñi sonn di taxawu lu mel nii ida maata al insanu inqataa amaluhu illa thalath illa min thalath sadaqatun jariya aw ilmun yuntafacu bihi aw waladun salihun yadcu lahu yenn saa sallam nee na nit ki bu génnee àdduna jëfam yépp dog nañ ko ba mu des ñett ñu ne ko yaa rasulallah mooy ban ban mu ni nga bàyyi fi xam-xam boo xamante ni bii nit ñi danañ ci jariñu moo xam danga nga ubbi daara moo xam da nga ubbi association boo xamante ni bi dañuy jàngal mag ñi lu mën a doon daara wala nga participer ci ci sa alal moo xam ay basang la moo xam ay ay chambre la lu mu mën a doon fekk loolu mi ngi am ku fa mës a jànge ku fa dudd classe bi nga yëg nga yëgul xamal ni ka ko taxawee ka ca jàpp ñu ngi ko koy versel ci comptam fii ba yowmal qiyaama ñu ni ko ak ban ya rasulallah mu ni sadaqa jaariya comme nga gas teen wala nga def waqf jël sa benn kër tabax ko ba mu baax nga ni fii def naa def naa ko këru jiriñ yi loolu lim la mën a jural ci yiw kenn xamul nu mu toll mën nga dem ba wuy gi sa boroom ay ñaari téeméeri at ñu lay verser tuyaaba ji di dem il faut nit ki xam wala di bàyyi xel li nga xamante ni moo koy jariñ ëllëg parce que àdduna kenn saxu fii yàlla ne na maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun maa uridu minhum min riskin wa maa uridu an yut'imun inna allaha huwa razaqu dul quwwatil matin nee na nit ak jinne dara taxul ma bind leen lu dul ñu jàmm ma bëgguma ñu wërsëgale ma man maay borom wërsëg tamaa leen koy jox bëgguma ñu jox ma di ma leel man yàlla duma lekk du ma naan li ma leen bindi mooy ñu jaamu ma wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun wa maa umiru si liya'budullaha la ko diin kon boog nañ ci góor góorgóorlu yar ci njaboot yi suuxat leen ci mbax ndaxte koo nit loo ko mën a dimbale te dimbale woo ko ci diineem rek nax nga ko sincèrement mbokk yi nañu góor a góorgóorlu ci njaboot yi di leen jàngal alquran di leen jàngal luxal arabiya bi nga xam ne mooy jumtukaay ngir nga xam sa diine ndaxte xam sa diine baax na damay wax ni tiim alquran di ko jàng di gëstu maani yi di ko teewlu giñ naa ci yàlla ni bànneex bi ci nekk kenn mënu ko melal mën nga ko mën nga ko jàng ci beneen langue ci anglais wala en français wala yooyu mais luxal arabiya dafa riche dafa kéemaane bu fa la ko bu la ci yàlla defalee tawfiq ba nga dégg ko nafaxaat ak ixaat yi nga xamante ni bi moom ngay jële ci alquran saa yoo waqafee billaahi wallaahi tallaahi moo dàq àdduna ak li ci biiram foofu lay tëj sama wax kàddu yooyu mooy kàddu yi nga xamante ni bii moom la ñu yëkkati ci turu Serigne Maodo moom moo amoon yéen a ñëw waaye jaam bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. mu ngi sant Serigne Orom Omar bu baax nag sëriñ Omar ku baax la ku am taxawaay la ku bëgg diina la di boroom xam-xam moom itam macha allah ndaxte lu mel ni jalasaat yu mel nii. nit ñi war nañ ko yittewoo ndaxte yonent bi sallallahu alayhi nee na dee leen gëstu jotaay yu ni mel ndaxte am na ci ay missionnaire ci malaayika yi ñoo xamante ni bii yàlla doyewu leen dara lu dul ñuy wër ci kaw suuf di seet bërëb yi nga xamante ni nii nit ñi dañ fay daje di waxtaane wàllu yàlla di fàttali konte di fàttalinte seen borom alquran zikr la toog di tudd yàlla zikr la waxtaane wàllu diine ak wàllu jikko zikr la yenn saa sallam nee na malaayika yi dañ ñooñu dañuy ñëw wër jotaay yu ni mel nii bu ñu fu ñu ko gis rek dañu leen di wër di leen ñaanal yàlla di leen jéggalul ba keroog ñu fay jóge kon boog jotaay yu mel nii mbokk yi su ngeen bàyyee seen lépp xam ni seen mbokk seen doom seen mag seen rak di sëriñ Omar xewle da ngeen bàyyi lépp ñëw a ah, loolu rëy na fa tabaarakallaahu te nit ku nekk boo sañoon soo xewlee boo gessoo gis say mbokk gis say am di jàmm gis say xarit ñu ngi leen di jéggalu ci guddal bi hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi hamdan yuwaafi niama wa yukaafi ulmasid ya rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sunek subhanak subhanaka allahuma la uhsi thanaan aleyk anta kama athnayta ala nafsik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 mooy ñaari rakk yi ñu nar a julli léegi nii ñaari rakk yi nga xam ne amuñu droit julli ko lu dul zawal dafa jot amuñu droit julli ko lu dul midi dafa jot jëm kaw julli googu daa am solo ba nga xam ne daa mel ni moom rek mooy julli ci bis bi mooy bisu ajjuma xutba bii nag jëmalewuma ko ci jàngal leen lan mooy julli juma ay farataam fiqam ndax loolu ñun ñëpp xam nañ ko macha allah kon liñ jublu ci xutba bi mooy ñu xam ne juma bis la boo xam ne ku ko bañ a julli ji te amuloo ngant ubbil nga sa bopp buntu def ay kabaayir ubbi nga sa bopp def buntu def bakkaar yoo xam ne suñ la ko baalul soo ko baaluwul bañ baal la ko mën na laa yóbbu safara yàlla na ci yàlla musal ñàkk julli juma te dara téewu la koo def day jur xol bu dee nit bu xolam dee du nekkati nit duutu yëgati dara du ko faal du faaleeti dara yàlla na ci musal day jur xol bu dee fii ci àdduna bu àllaaxiraa day juru morom borom bi tabaaraka te borom bi kum mere yow mal xam dana la yar te yàlla kum yar nga yaru loolu moo tax lu leer nañ ñi la ne àllaaxira àdduna bi moom ku fi bàyyi julli jumaata tey ko sa dara du dox sa dara du jub loo am tey itam da ko ñàkk suba waaye li wér wóor mooy àllaaxira moom li mu lay jural mooy li yonent bi wax ne ci àdduna képp ku bàyyi ñaari ajjuma yu ñetti ajjuma yu tegaloo te teguloo ko fenn yàlla dana tappe sa xol benn ngëm yàlla du ci duggati genn leer du ci duggati yàlla na ci yàlla musal kon liñ bëgg a tënk tey ci xutba bii ñuy ubbee suñ jàmm jumaa jub tedd ji mooy yenn teggin yu nga xam ne képp kuy dem jumaa war ngaa sàmmonteeg moom teggin yóbbu ci njëkk mooy ajjuma daa war a rëy ci ñun ajjuma daa war a rëy ci jullit su jotatee mu bàyyi lépp du sóor dara ci ajjuma ndax jox ajjuma akam mbokk jullit yi yii may bëgg a tudd nañ ko bàyyi xel ci ajjuma yi ci jumaa yi yii may bëgg a tudd nañ ko bàyyi xel ci ajjuma yi ndax day yàq ajjuma walla mu wàññi yoolam ba ci njëkk mooy bisu ajjuma fu la mi fekk lépp loo doon def danga koy bay wala loo ca amee mu xaram bisu ajjuma fu fu la mi di ajjuma fekk lépp loo doon def bàyyi ko wala dërëm boo ca amee mu xaram moo xam da ngay bay moo xam dangay ngay moo xam da ngay jaay ak loo mën a def bépp contrat boo ci signé dañ koy annulé kon nañ moytu di liggéey ak di wut wërsëg ci bisu ajjuma heure juma loo ci amee du barkeel te alal bu barkeelu du faj soxla man naa fees sa poos del waaye loo soxla du faju ndax fu ñuy laaj junni boo fi ñëwee ñaar fukki junni lañ lay laaj wala yàlla teg lay natt yoo xam ne loo ñaq dugal ko ci ndax alal ji barkeelul ku bëgg alal ju barkeel te mooy alal joo xam ne lu mu tuuti tuuti mu faj soxla dangay ngay bàyyi heure yi yàlla wax ne bu ci kenn wut alal bu mi di jotee bi a ajjuma ku bëgg am lu lew la nga yoroon danga ko bàyyi dem ci jumaa ji bii nag moo gën a jafe mooy déglu imaam jàkka ku fa ñëw amatoo kaddu imaam dong am kaddu gi jàkk kese amul wakkante amul dara toog rek yaru fii ku ñëw danga war a yaru fii kenn dong nga fii chef mooy borom bi tabaraka wa taala ak ki wax ne jiiteel kese kon ku ñëw ci jàkk da nga yaru jàkk kenn du fa wane sa bopp te en réalité duñ tus ñun duñ tus yonent bi nee na man massal xasa faqad laga waxuma sax ki wax nit ne ko noppil waxuma kii wax de waaye ku yor aw xeer ni ci fo sax wala kurusam di ko fo sax yonent bi nee na yaa ngi fo jàkk kenn sax heure bu imaam di ko dooyut kurus di def dara gis nga ñun ni ñu soree ak lii diine jàngale ma ne ko gis nga Sénégal boo sérieux dañ lay sanctionner négativement boo sérieux wul ñu sanctionner positivement ndaje moo dem ngeen la jéem a yitteel bañ teel a ñëw ñooy mujj nekk ci gannaaw ndaje moo dem ci Sénégal ñan daje jéem a yitteel bañ teel a ñëw ngir am place bu xaj ñooy mujj féete gannaaw ndax farceur farceur yi nekkoon ci kër ga di fo ba tar na ñoom ñooy ñëw ñu ñu puus ñu ñëwoon ci suba bàyyi leen ñu toog. loolu nag ku neex nga def ko ci sa ndaje mais fii jàkk ji kenn amul laa def jàkk ji ku bëgg a jege da ngay teel kenn du jéggi kenn kenn du pus kenn jàkk kenn amul place kenn dong fi am place mooy imam imam mi nga xam ne bu ñëw kenn julli kon ñu bàyyi xel loolu yonent bi nee na dafa séen benn saaba mu dugg jàkk ji di jéggat ndax xam naa am na place bu mu bu mu ñëwee boppam bu mu bu mu génnee boppam ci kanam yonent bi ne ko eh toogal yaa toogal yaa ngi lii mooy tegginu jàkka ku wut tiyaaba taxatee jóg jëm ci jàkka soo ñëwee melal nii su dul loolu tarsu nga ndax foo waroon am tiyaaba soo fa jëlee bàkkaar tarsu nga yàlla na yàlla musal ci loolu yàlla nañ yàlla jàppale ba ñu nangoo nekk ay jullit yàlla ci yàlla jàppale yàlla yàlla nañ jàppale bay nangoo nekk jullit te ni ñuy nekkee jullit kenn dong ko xam mooy yonent yàlla Muhammad keneen ku la ko wax te yonent bi waxu ko waxul dëgg qumu ila salaati yarhamkumullah الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله pose première pierre complexe islamique El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh euh, ñu def ko fii ci Bulal euh, di euh, rafetlu comme ni ko El Hadj Omar Seck waxee di wax ne sant naa yàlla man tant que maire Bulal bu ma ñëwee ba léegi juróom-ñetti juma inauguré nañ ko ci biir Bulal commune Bulal bi donc loolu comme ni mu ko waxee jàpp naa ne sama sens la fii fii ci Bulal ah bii mooy ñetteelu euh, jumaa ci biir dëkk bi bu ñuy euh, inauguré te am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy tabax tey donc loolu dal na xel euh, ci biir dëkk bi ci wàllu diine ah, complexe bi nag nee nañu jumaa la ak daara pour jàngal xale yi seen diine ak xam-xam donc éducation nag lu am solo la ci cim réew cim gox euh, surtout nag njàngum diine donc complexe bi dana euh, fexe ba xale yi ñu jàngal leen seen diine fexe alxuraan njëkk ci seeni xol ak ci seeni xel loolu defe naa lu am solo la bon ci réew moo xam ne euh, fi mu ne gouvernance bi gouvernance laïque la bien que xam nañ ne Euh, quatre-vingt-quinze pour cent population wu Sénégal ay musulmans lañu waaye am nañu yeneen minorité ba tax na gouvernance bi gouvernance laïque la waaye nag comme quatre-vingt-quinze pour cent population bi ay jullit lañu baax na ci ci biir gox yi comme nii bulal xale yi alxuraan njëkk ci seen xol njëkk ci seen xel loolu day tax lépp luñ jàng leneen day ubbi seen xel donc loolu rafetlu naa ko trop ci biir Euh, lii lii euh, Omar Seck di def euh, pour bañ a guddal wax ne xam ngeen ne ñoo ngi jëm ci élection présidentielle 2019 révision liste électorale yi tàmbali na démb premier mars ñaari weer rek la ñu am ñaari weer yooyu lañu am pour yeesalaat carte d'identité carte électeur yi ñi nga xam ne amuñu ko woon ci ñaari weer yooyu la ñu am pour def ko élection moment la bu am solo ci euh, dundug réew benn yoon lay am juróomi at yu ne dañuy tànn suñuy njiit te njiit tuutiwut donc ñun tamit nañ fexe ba ci ñaari weer yooyu ñëpp ñi nga xam ne amuñu woon d'identité walla carte électeur ñu fexe bindu ji pour ñu am seeni carte pour bu bës bu wotee jotee ñoom tamit ñu mën a participer ci euh, ci élection bi Euh, bu loolu weesoo xanaa def ay ñaan rek ñaan jàmm parce que lépp ci biir jàmm la xëj jàmm ci bulal jàmm ci jolof jàmm ci Sénégal ñaanal jàmm aussi suñuy njiit ndaxte comme ni ñu wax sa njiit bu amul jàmm ba mooy tuddoo am jàmm donc ñaanal jàmm président la république ndaxte moom moo yor réew mi mooy dox ci turu réew mi mooy wax ci turu réew mi mooy décider ci turu réew mi kon kooku yàlla na ko yàlla may jàmm ah, doomu jolof ya muy liggéeyal tamit ya muy liggéeyloo yàlla may leen jàmm ndaxte jël na ay doomu jolof cëral leen ñu nekk ak moom di liggéey ak moom donc yàlla may leen jàmm yàlla may leen ndam ci biir liggéey ba nga xam ne moom la leen dégg yàlla may ñu jàmm aussi ci biir bulal jërëjëf loolu rek laa ci doon wax. maa ngi nuyu mbokk jullit yu fi nekk yépp di jiital ci nuyoo bi kilifa diina yu fi nekk xam naa ne ku juum waaye commencé ci shérif nga xam ne mooy seetu sallallahu alayhi wa sallam di nuyu El Hadj Malick suñu sëriñ bu baax bi doon wax léegi di nuyu alaji Daam Ndiaye président Daam Ndiaye président imam yi di nuyu président association bi Moustapha El Hadj di nuyu daa daanaka jël kàddu nuyoo kilifa diine yépp ma teg ko ci loxo El Hadj Omar Seck mu jottali leen di nuy kilifa aada yi di commencé par monsieur le préfet di témoigner fii euh, ci devant Alaji Malick Sy mii di confirmer li nga doon wax léegi préfet mii ku baax la yàlla def ko baaxal du fekkee mukk coono doomi aadama moom rek laa gis ku bokk ci nguur suba ba guddi mu ngi dow pour régler problème doomi aadama yi di ko sant particulièrement parce que man président conseil départemental la dama jiite collectivité locale maak suma rakk Abou Bakri mun na ko témoigner dafa ñu jàppale ci lu ñuy def kon maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu sous préfet bu baax a baax du sagata di nuyu sama rakk al euh, abu Bakri xim xam ne mooy c'est le premier maire de Boulal toujours ba wax ko loolu aussi xam nga su la yàlla mayee loolu da ko war a da nga ko war a santé nga nekk doomi gox yàlla may nga nekk le premier maire te mu nekk xale bu baax a baax a baax maa ngi koy sant bu baax a baax di nuyu ñëpp di sant bu baax a baax El Omar Seck man de El Hadj Omar Seck bi ma ko xamee sax bu ñuy jokkoo takku ko noonu sax yàgg mais dama gis ci moom Sénégalais jolof jolof bi xam ne moom itam d'abord dafa am xam-xam dafa am diini dafa yaru. te dafa patriote parce que El su xëyee moom itam suba ba guddi day dem uuti su amee indil Jolof kon El ñu ngi lay sant di la gërëm ci lii ngay def ci biir Jolof li ngay li ñuy def tey wane na ko ñuy def pose première pierre comme complexe bi tey aujourd'hui xam ngeen ne loolu dara gën a ko rëy ci wàllu diine ñu ngi ubbi jumaa ji ci Omar bi ma ko xamee ak léegi ci lii rek la nekk kon soo amee sa mbokk bu baaxee na Omar ti muy def li xam ne yow mënoo ko def te xëy na war na la da koy tiituroo sëriñ bi si Omar mii nuñ waa Jolof dañ koy tiitaroo parce que ku baax la c'est un patriote lu mu indi indi Jolof ecole euh, bu muy ubbi fii pré premièrement président Macky Sall la ko defal parce que ci biir politique euh, Macky Sall lu wax pake c'est lekkool inclusive c'est lekkool de tous école française bi ak daara yi ñëpp ñoo ci war a bokk waruñ bàyyi kenn te Umar mu ngi contribuer ci loolu su ko defalee président Macky Sall ba pare defal ko Jolof su ko defalee Jolof préfet département bii la ko defal su ko defalee Jolof man président conseil départemental la ko defal parce que éducation dafa bokk lu ñuy wax compétence transférée dafa bokk ci compétence su conseil départemental ak maire yi kon nag Omar ci turu département bi ci autorisation préfet maa ngi lay sant di la gërëm di sant képp ku ñëw fii wuy suñu parce que sa bés bi mooy bésu président mooy bésu préfet mooy bésu président conseil départemental mooy bésu collectivité locale maire yëpp donc ñu ngi lay sant di la gërëm di sant ñi xam ni ñooñu wuy si ci bés bi su loolu passé Abou Bakri wax na ko léegi monsieur le maire euh, ñu ñaan ngeen ñaanal président de la république sëriñ bi wax na léegi njiit dañ koy ñaanal soo àndeek moom war nga ko ñaanal soo àndul ak moom war nga ko ñaanal nuñ nag dañoo ànd ak moom euh, te nag fii ci Jolof man témoigné na la lu bari nuñ de fii ci Jolof mu suñu am président mu mel na président Macky suñu doon lim lu mu def fii dañ fi nekk ba 6 heures kon ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko dëkk bi am jàmm dëkk bi am sécurité euh, ñu ngi jëm ci élection 2019 yàlla def ñu def élection yi dans la plus grande transparence am jàmm bañ a am problème euh, ngeen ñaanal ko yàlla may ko ñu folaar ko man il mu wax ko man sëriñ bi parce que foofu laa bokk premier tour nit suy ñaan na ñaan lu ma bëgg loolu lañu bëgg kon wax bi gudd na maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu ak sant dañuy jëkk sant Chérif ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sa teewaay gis nañ ko ci département bi ñu paree Chérif ñu jëm sëñ daam sëñ daam ci télé bi rek lañ lay gis di la tiitaroo ce qui fait que ngi lay dalal jàmm fi si Jolof di kontaan ci li nga def tey jii teg ci ñoom sëñ Asta teg ci El Hadj Seck bu Ndiosi El Hadj di wax moom nit ñi la fi nekkal yàlla na la yàlla taxaw mhm. wax ji moom boo xoolee ba ci biir répétition la ñuy daw comme guddina dañuy ñaan ngeen ñaanal président de la république ñaanal Jolof ñaanal ñu am élection yi apaisé loolu laa bëggoon wax wa salaam alhamdulilah rabbil alamin a jërëjëf